يومئذ asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Corrigé de la Strada maa bu baax a baax eh, ma ñëw nag tey ci beneen faset eh, ci mbirum social eh, dañ ma sas ab liggéey te liggéey bi ma mel ni dama cee xaw a néew doole ah ma ne naa ko indi ci réseaux sociaux yi ci ñi nga xam ne ñoom suivre ci YouTube ci TikTok ak ci WhatsApp salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu Cheikh Mouhamed marhaban bikum gis nga kon gis nga jàkk jaa ngi noonu mooy fi ñuy jàng moom lañ defar pour jàng waaye gis nga tabax yaa ngi nii mooy fi nga xam ne mooy néegi xale yi ñàkk a raaxagum loolu moo ci des ak yu mel xale yaa ngi noonu di noonu lay waaw ñu noonu gis nga ko ñu ngi nii ci yenn liggéey pour àggale ko pour àggale yenn liggéey daara jaa moom daal ñu ngi ci yenn travaux yi gis nga ko lépp lu ñu ci waay mën a jàppale rek incha allah muy raax ab néeg wala peinture ab néeg walla dund wala nangam moom daal loolu la ñu tàllal loxo rek waaw di jégalu bu baax a baax a baax baax incha allah lii daal moom mooy xaala bi fi mu toll nii gis nga ko jàkk jaa ngi noonu fii tam loge ab logement la waaw gis nga ko mi ngi noonu bloc administration waaw yeneen néegi nag moo nekk nii moom daal lañ bëgg a àggale rek nekk ci incha allah jërëjëf barakallahu fikum léegi nag vidéo baa ngi noonu euh, ngeen seetaan ko bu baax a baax rek li nga xam ne moom lañ ci sàkku lépp lépp lu ci waay man incha allah ñu ngi ko ciy xaar euh, dana am numéro boo xam ni euh, orange money lay doon wala wave lu ci waay man rek incha allah ci liggéey bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare tey jégalu bu baax a baax jërë ngeen jëf. léegi nag vidéo baa ngi noonu ngeen seetaan bu baax a baax rek li nga xam ne moom lañ ci sàkku lépp lépp lu ci waay man incha allah ñu ngi ko ci xaar euh, dana am numéro boo xam ni euh, orange moo ne lay doon wala wave lu ci waay man rek incha allah ci liggéey bi ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziare.